بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء gim ji wane ak suñ xaari moom ak suñ Fallou Seck mi nga xam ne daanaka mën naa ne moo ko moo ko bind sax moog suñ ji li ñoo doon tënk liggéey bi laata loolu lépp amit àndoon na ñëw si kër seet si la nga xool ko rafetlu ko lool nga xam ne loolu moom liggéeyal Sëñ Tuubaa la ci alxuraan te dara gënu koo ñor ci liggéey bu alxuraan moo ca war a jiitu ak sëñ Moustapha Guèye mi nga xam ne daanaka mooy administrateur bi man nag wàllu communication bi lañ ma dénkoon ma doon ci doxal liñ ci jot a nag mën naa ne bu doon téeméer juróom-ñeent fukki yëpp yow la ndax ñi ci rencontré ñëpp yàlla bu yàlla sa ndigal la ak sa jàppale ci suuf moo tax maanaam mu agsi fi mu agsi moo tax ñu dellusiwaat tey di def waxtaan woo xam ne xam naa ne bu dul mujj waxtaan yi daanaka di di di avant bu mujj bi yoo xam ne dañ koy waaje euh, tëj te loolu lépp liñ ciy def mooy ñëw toog sa kanam leeral liñ ci jot a jàll euh, li li ci kanam it nga joxe ci ndigal moo tax xanaa dama ubbi rek ndax li ma yor communication waaye damay jox sa njiili mu nuyu la leeral li nga xam ne mën na ci la def ko ci lu xaw a gàtt ndax waxtu bi bisimilah. alhamdulilah ñu sant yàlla bu baax di dellusiwaat di la ziar di ñëw ñëw ak yeesal du ñëw sos ndax fuñ mas a toll rek ñoo fa am toll ak yow waaye nag buñ demee ba mu gën a am tolluwaay beneen dafay jaadu yow miñ jógandool te sëriñ bi dénk di lépp muy nga yore kàddoom te di ñu koy defal sëriñ Touba day jaadu fuñ toll toll fa ak yow ndax say xalaat ak say jàppale ci waxtu ne dañ koy soxla te dañoo sëñu ci def nag lu dul loo ànd wala lu dul loo yëg ndax représentation bi nga nekk moo nekk ci sa ndigal day nekk ci sa ànd moo waral étape buñ toll rek ñëw tollu fa ak yow wax la ko ñu ko sëñ daam waxee it ñu ànd ak nag ngir mu ne day am rek ndax mbooloo mu bari la ndax suñ président d'honneur mooy sëriñ xabbaan mu sëriñ Mouhamadal Fadal démb rek maa ngi jokkoo ci moom di ko xamal ne ko danañ seeti sëriñ bi ndax dañoo toll ci dernier réglage waaye ñu ànd ak sëriñ Mouhamadal Fadal Seck mu nekk al munasikul am ak naayibu sëriñ dëkk bi ndax ni dëkk bi lépp organisé bu fekk nañ lépp ngeen organisé ko te ñun lu ñuy def lu ne dañuy topp ci ginnaaw na ko sëriñ bi tëralee muy ki nga xam ne mooy sëriñ Xaadu Jaxate nga xam ne rabita moo ko jiite yore liggéey bu rëy ndax moom itam nag dafa def lu am solo loo xam ne bañ tàmbalee liggéey bi ba léegi lépp ndax ginnaaw jaayisa bi Tuubaa ko tax a jóg Sëriñ Tuubaa ko tax a jóg fu ñu ko mën a génne dafa def lenn it dañ cee bëgg rek nit ñi xam ko waaye nag fii la sosoo fii lañ koy defee fii la ñuy léppale sëriñ bi te moom moo jiite daara yi fi nekk bañ ñëwee it ànd ceeg moom mu bokk ci tansixiya bi mooy ñi koy coordonné mu def ci liggéey bu rafet loolu it day jaadu bu ñëwee xanaa damay ubbi rek waaye moom tolluwaay bi ak fi ñu jëm moom moo koy leeral sax ñoo ñooñu laa àndal muy sëriñ Dame ñoom moom duñ waxati lenn moom ñoo ànd ci liggéey bañ tàmbalee ba léegi euh, ci biir ak ci bitti ndax li ëpp solo ci liggéey bi muy communication moom lañ ko dénk te it kenn jiituwu ko ci jëf ak bokkee ci kër ñang yëpp nag ak sa mag ju baax ji sëriñ Habib ak sa rakk ju baax ji sëriñ Jiir mu sëriñ Saale di la seeral it koo xam ni jëf na ci jëf ju rëy yoo xam ni mën nañ ni kenn ëppaleegu ko ci muy sëriñ Modou Kara Mbacké Noreyni ndax jël na ci ñaar fukki saar ak juróom-ñett te gisaguñ ko sax ñun waaw ñooñu daal moom la ñuy tàmbali di wax la lu mel noonu yëgal la ko li ñu tax ñëw daal tey mooy dañoo toll ci waral def concours bi nag ci ñetti fan yi nga xam ni moom lañ jàpp waaye nag loolu mënuñ ko wéyal ndax yaa fi nekkal sëriñ bi maanaam bis bu njëkk ci incha allahu taala buñ nee ñaareelu fan ci safar ak ñetteelu fanu safar ak ñeenteelu fanu safar ah, waaw ñeenteel boobu moom ca lañu bëgg a def xafla euh, xitamiya bi xam naa détails yooyu sax damay jox sëñ xaalis mu leeral ko ndax dañoo bëgg incha allahu taala buñ ne safar teru na ñaareelu fan ba ñett mu doon ñu am ñetti fan yoo xam ni ay yaam xuraan yi lay doon léegi nag noonu ni ñu koy defee nag ak euh, nan lay doxee comme dafa dugg ci màggal gi te bu ci dugg toon it dañuy ñëw ba ci yow waaye lépp day liggéey bi di benn te nga jiite lépp moo tax duñ duñ dem fenn li ñuy soxla ci dëkk beeg nañ ko war a doxalee lépp maanaam ci yow lay mën a jaar moo waral loolu ñu ñëw incha allahu taala di la laaj ndigal ak di la xamal niñ ko bëggee buñ ko validé rek loola la ñuy jàpp ni moom la ñuy wëyal man koo génne nag doxal ko ci liggéey bi li ñuy jiital nag mooy ñu ngi lay ñaanal bu baax suñ borom dëgëral la sàmm la ñum sàmmee ki nga xam ne moom ngay liggéeyal tey dafa nañ ci njor ndax moom fàggu na lépp euh, am nañ mbégte lool nag ci saw doxin ñu ngi lay ñaanal ak mucc ak ndam lu sax ci barke Sëriñ Tuubaa nañ lool ci jataay yow yow jërëjëf Mbacke suñu borom mu boole ñu baal di leen ñaanale tawféex ak ndimbal ci liggéeyu sëriñ bi ba yaakaar yi kilifa yi am waxtu nekk ñu ci am lu kawe seen jort ci barkeb sëriñ bi mbokk yi jiitu noonu ñu la ko leerale eh, liggéey bi moom sab liggéey la bi mu tàmbalee ba tey ñu ngi koy ànd luñ ci bëgg a dugg ñëw lool rek moo amaat jéggi na jéego yu jëkk yi nee naa leer na ci yoon bala yëgle gi ci biir réew mi ba biir réew moom fi fi ñuy jàng fépp ñu yëg ko dañoo jëfandikoo xame bi ñu amoon wet gu nekk ñu fekk fa jàngalekat bu mag ñu bind ko ne ko yaa yore yëgle bi ci wet googu mu yëgle ko ca foofa ba nit ñi bindu ñu def tasfiyaat awal yi jaarale ko ci noonee ñu waxoon xarala yu yees yi nga xam ne ko ne da ngay tari ci vidéo indi ko ñu def lañ na taxkiim dalal leen fii ci kër gi ci jumaa ji ñu déglu ko ba mu jeex ñetti faran yi faran bu nekk ñu tànn ca fukk juróom yee jiitu hmm, mu war a nekk ñeent fukk ak juróom waaye am ca tuuti ak manki ngir lu mel ne bi eh, ànd ak tafsir eh, dañoo defoon at yi mu yem ci fanweer ñu bari ci ñi bindu woon dañ koo xaw a jéggi xam naa loolu suñ demee bay jógaat mbooloo mi am nañ ci xalaat ci xay na gën koo kaweel moo tax moom juróom moo ca génn. kon dañoo mujj fanweeri nit ak juróom-benn ñoo génn ñu ñu ñu war a dem final euh, ñooñu nag ñoom lañ bëgg ni ko sëriñ ji li waxee bu ñu àggee ci ñaareelu fan ci safar ngir benn fan léeg-léeg da mën naa bañ a gaaw a leer moo tax ñu jàpp ñaareelu fan bi ci safar su boobaa ñu dajale ca euh, ànd ak lañ natu tax kii bi fekk waajal nañ lépp la ca jëkk mooy su fekkee am nañ ndigal euh, bi ñuy

ñoo jot a génn ci ifsukat bi ma tajwid wa tafsir bi ñoom ñu déglu leen ci bis boobu bisu ñaareel bi ñu déglu ci xifsu kaamil bi ma tajwid ak juróom-benn bisu ñetteel ba nag di rabiu safar ñu def ci nag xafla kitaabiyya bi waaye ñi tamit ñu leen di déglu ñu ko bëgg a defee ca saal bi te yëgle ko nga xam ne mbooloo mi kon yooyu tari seeni jàngalekat ak ñi bëgg a kii dund alxuraan yëpp dañuy mën ñu fekkee si ko ba defee bu ñu àggee ca bis ba nag xaflatu tabiya bi kasalika waxtu dana fekk ci xat-xat waaye waxtu woo gën a bëgg mu doon ca jàpp ne sa waxtu dina ko ca danañ ca bàyyi xel bala ñu ko programme yi incha allah lépp it ko ànd ak ñi ñuy àndal liggéey ci dëkk bi xam ne seeni la ñu àndoon ak sëriñ bi hmm. sëriñ bi yëkkatee loolu it ñu yëg ne alhamdulilah ku ne dafa mel ne ko yëkkatil moom ni mu wax rek la ci def ak yaatal bi mu def naa dëkk bi moom luñ ci soxla rendez-vous bi sax dafa mën yaa koy jënd nag loolu du ci dara jël mën kon loolu mooy tànk yi xam ne daal daanaka ñëpp waaj nañ ba noppi buñ ci àggee xale yi ñëw déglu leen déglu ba nga xam ne moo ca war suñu génnee ba tari ñu ne kat jaay sa ba amee Touba am ci turu Seexu Xaadim yi ñu bëgg mooy mu kawe yëpp li ñuy wax mbañ a yees benn waaye boo kawee yëpp ndax suñu benn alxuraan ñoo demee noonu. Hmm? waaw kay ah kay lu mel ne Mauritanie ak Burkina Faso jàpp nañ seen teewee si ku ci nekk yëgul na waaye ñoom bëgg nañ première safar ñu fekk leen fi incha allahu taala xanaa bu ñu agsee ñoom dañuy musaaraka mu baasar ci euh, ci ci final bi. incha allahu taala donte bu ñu agsee dañ leen testé xool waaye daanaka ni ñu ko baaxoo ci musaabaxa bu bëri rek bu baax si dañ la xool ndax doo mën a def minasa bu mag. àddina bi fu di la filmé ngay tariloo koo xam ne mosoo koo tariloo moo tax kuñ ci testé tam mën a jàll day participer directement ci ci ci final bi ko defee nag bu ci ne juróom yi ci jiitu nag ñoom la ñuy defali prix tàmbalee ko ci ka ci jiitu ba ci ka ci topp ci liggéey liggéey yu am solo ci bokk yi ngir ci àggee bu mën a doon loo xam ne ñi ñuy defal prix yi danañ xam ne jaay sa Seexul Xadim mm-hmm. euh, joxe na prix xam ne sëñ bi masa mel bàññi ko tey bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin mudabbiril umuri wal xalaaqi ajmain wa huwa alqailu fi muxkami tanzilihi ma faratna fi lkitab min shay wassalaatu wassalaamu ala man buisa mualliman sayidina muhammadin safwati bani adnan wa ala alihi wa sahbihi ahlil ihsan wa radiyallahu an baqiyati salaf qudwati alxalaf faxad diin walwatan mawlaana al abdi al xadim ahmad ibni muhammad ibni habibillah bokk lislaam ji yëpp bokki taalibi murid ji yëpp ñu ngi leen di delloo am ñooy ci nam gën a rafete di ànd ak mbégte mu rëy ak xol bu sedd ci jataay lu ne ak kam ko doon ci yow am ko jaar ci yaa am tawfeex yi Cheikh Mouhamadou Mountakha di faral di wax yaa am tawfeex lan la ma yaa ci daal si baax yaa am tawfeex am ndigal li soo yow itam yaa am tawfeex yi yàlla suñu ilham la mu mel ne bëgg-bëgg suñu tubaab la ndax Cheikh Abdoulaye Mbacke waxoon na ne suñu tubaab lépp nu mu la bëggee liggéey noonu rek da koy def ci sa juróom xel. loolu la ñuy jël yëpp yëpp la. képp kuy jëf ci biir yoon rek da gi rëy na ci yow. moo xam ne boo ci doon góorgóorlu rek war nga ko gën yokk. ndax lii liggéey bu rëy na. boo xam ne ñun ñii ñoo ko ndax maa seen xel ñu daanaka ci waaye méritoon nañ ko bëggee ndax liggéey bi diis diis am diis yaatu nekk ci benn bu yàggee soxla day am kon nag suñ la mu noppi naa ci daa mel ne rab bi nga xam ne ay siram ba mu njëkk fu jamono toll rek mu leen ne soloom toll kon lii itam jàppale ci liggéey boobu tawféex lépp looy liggéey jëma ko ci Sëriñ Tuubaa tam jàppale nga xam ne Sëriñ Tuubaa nu ma la suñ saar yi daal wax jëpp boo Sëñ Tuubaa lu nga xoolal xoli taalibe bi fa xoli taalibe bi jëm fa la xol Sëñ Tuubaa yi te boo ko yëkkatee ba léegi gis naa ni ñëpp ci ànd ak loolu tawfeex ju rek euh, nekkul ci maa itam nag hmm. ndax sama am Sëñ Moodu Faaj na hmm. ci bis bi Sëñ Tuubaa wootee ci ñi njëkk a wuy si loolu ñi njëkk a wuy si loolu te xam ngeen ni mu demee ci diine. Mm-hmm. ak fi mu àggoon ci digg ma borom ba jàpp ne kenn jiitu ko. Mm-hmm. Sëñ Tuubaa la kenn xamul lu mu doon. Mm-hmm. maa dégg suñu si di wax ne. di ci netti loxoom sax xam naa day gudd jotaay waaye di ci am solo. mooy képp ku askan suñ Mourou Fadiam. ndax yéen yéenay cosaan yoon bi. kër ña nga Sëñ Tuubaa koo ko digaloon. ko demal dëkk foofu. ak ñun dëkk ñun digaloon ñëpp suñu Mourou Moussa ak suñu Fallou. suñu Massamba. ak sëñ Modou Khare Bousso ak sëñ ma sëñ ma Samba Kane Bousso ñoom mm-hmm. leen digaloon nee na ku ci diw na dem ba bara sàng nga sanc nga sanc ma mm-hmm. boo su bu sama jumaa ji àggee ñoom mm-hmm. dafa bàyyi ko di julli si kon loolu mooy Touba. Mm-hmm. kon yéen da ngeen di sax sax ngir yoon yi. Mm-hmm. di cosaan yoon kon lii rek ngeen war def. moom ngeen doon nag démb. Sëñ Touba ñëw gën ko yeesal gën leen cee dëgëral. toog fi kon ñu ngi la ci ñaanal. da koy fas yéene ak ci lépp lu ngeen ci ne rek. dañu ko ak ci kàddu ak lu mën la. incha allah ba jëf yàgg. gëm naa ne lu jëm ci Sëñ suñu xaalis yooyu itam ñu ngi lay sant bu baax. di gën ci sa taxawaay. ndax. ci lii rek nga nekk. démb bi ma sëriñ bi di jox ndigal. nee naa woo suñu mbiru xabaar ak suñu am sax. surtout lu bokk nag ñu dund. loolu sa posté ko. te loolu dund naa ko yow yàgg. ba ci liggéey bi ñu def ci màgg tubaab yi. du war a ko sonn. ba bañ ko xasee wax rek ñu ndigalu sonn. am nga jot wa waxtu wa accès. dañ cee def sa àll def ci sa bopp. loolu soxla sax laaj na ko. donc doo ko kon nag lii moom. jàppale ne dara daanaka mooy waajtaay ma dugg waaye kon ndax lépp lu ñu koy defal rek alfaan la ci war a jiitu te yëg-yëg boobu la ñu bëri amoon nan lañ koy defee nag ba mu demee noonu moom lañ gisutoon kon ci wàllu yàlla jaar kon nag yéen ñëpp ànd ak sëñ maam dam sa a yàlla gis naa ci taxawaayam ak sëñ Moussa xam ne moom itam maa ngi Modou Gueye Diamono xam nañ ci njëkk a topp sëñ bi kon cosaani yoon ak sëñ Fallou Seck kon kon kon loolu li may faral di wax naa ko démb ca làmbaay lépp lu la naqari la jógewu ci cosaan bi ñi nga xam ne seen maam yi ñoo sosoon yoon ba fi mu ne loo leen gis sax xam nga Sëñ Tuubaa la joxe loo loo gis lu jaaxal ci doxalin nit tam xamale Sëriñ Tuubaa la ci xel Sëriñ Tuubaa rek ne seen xol murid yi nag ci Sëriñ bi rek leen daje bi daal ñëpp day ji mm. bu dee Sëriñ Tuubaa ju raxut ñëpp ñaan say day ji mm. kon loolu yàlla nañ ko ci yàlla defal te alxuraan diggam mooy dëppam mm. mooy fagguteefam moom la daa jël néegi néeg kër gi li yaatu yaatu yaatu nga xam ne ay téeméeri néeg la lal yëpp ay téere la fa daa teg mm-hmm. di ko pompe alxuraan di ci pompe gëtt yéen sikki di ci sotti ak libee mm-hmm. di ko warmaal lii ngeen def itam mm-hmm. sëñ bi daal nett na ko ñëpp di dégg ci tam mësa nangoo ci dara ci loxoom lu alxuraan mooy xese boobu mu nekk ci fa fa dexam kese kon ku ko jàpp naan ko koy dàkk lu mu bari bëri. ku ko dàkk ci mu dàkk ci alxuraan jëpp mm-hmm. mais alxuraan ku ko ci dàkk danaa gis moom. jaay isa ji ngeen def itam. Mm-hmm. di yëkkati di ko jox ñu wattu. Mm-hmm. loolu itam da ngeen a da ngeen a fet li jëfi sëñ bi. ndax sëñ Tuubaa ku ko mos a bindal kaamil. ñii dana yëkkati buubu barkeel jox la. ñii dana yëkkati xaalis jox la. moo tax fon nit dafa daal bindal téere ca jamono ak jamono ngir la leen sëñ bi di jox. Mm-hmm. ndaw ñu bokk ci biir yoon. Mm-hmm. ku ko mos a jox alxuraan rek dana yëkkati xaalis jox la. Mm-hmm. ba ci ñi fóotul ñëpp noonu la ñuy kon jaayisa bii. ngeen def du du du du du li Sëñ Tuubaa daal ko jëmmal. te it Sëñ Tuubaa ni mu ràññi ko ci alxuraan. li suñu borom man la keneen tam li kan yëpp. loolu keroog ba suñ xaalis ñoom di organiser leen ci Darou Manane. waaw te la suñu Abdoulaye Dia doon wax wax naa leen ne leen. yomb na firi. ndax boo doon xool ci àdduna dëkk bi ëpp ñu ma ko alxuraan te duñ ko xool. kon bu ne maamu alxuraan. jooju firnde doon. te firnde yu bëree bëri. ba nëgë ni. daara joo dugg la fa ko kenn xamul. ba day mel ne. ku mokkal alxuraan sax dañuy jàpp ne Tuubaa mm. loolu cër la. kon nag yéen itam lii ngeen def. Mm. dana gën a soññ nit ñi. Mm. kon na ko ñëpp fonk. di ko waajal ko tey bi yëpp dañ ko waajal. fonk ko te xam ne kuy dàkk ba bëgg Sëriñ Tuubaa. alxuraan jiw a jiw. alxuraan moom mooy li suñ boo xam ne sama ñaari. ngànnaay yi mm-hmm. muy alxuraan ak xasida xasida mm-hmm. ci biir alxuraan la ko suñ tuwaat bi am na kooku mas a laaj si nga ko dañoo nit ñi dañoo jaaxle ak ñoo gis yenn daanu ko bi bu njëkkatee xasida mu leen tàggalee seen sabata bu njëkkatee alxuraan bi ñëwut mu ne ko dañoo xamut waaye xasida ci biir alxuraan bi tëdd naa ne ko dafa mel ne dugub ak cere mënoo am cere te amoo dugub. alxaan yi mooy mooy dugub ji. Mm. xasida ci biir alxaan dugg suñu tubaab yi. Mm. xasida nag day du noppi. nga mm. xam ne koy jëriñ ko. waaye alxaan mooy ndab bi nga xam ne. li ko suñ bi tudd rek. moo tax képp ku wax na ko fu bari am na ko ko sëriñ Sonia boo ne ko. ki bind ne. kullu muridin. bi ya loosu yee saxadu. waaye nu ko azar mm. mu baax mm. nee naa ko ka bind loolu mm. ma bind ne kullu muridin bi yee loosu falwidin dina watal Sëñ Tuubaa da ko digle boo demee ci alwérdul maxfuus bokk na ci sart a walaw salaasata min al ihsaan faw nga jàng ñetti isim kon moo doon lépp sëriñ bi surtout nag moo koy jàng di bindu di ko tari di ko wéttili ko kon yàlla nañu ci yàlla defal taw. ñun itam kenn bañ ñu caaman ci. loolu daal suñu kattan ak suñu doole lépp. danañ ko ànd ak yéen. teewaay bi deful lu ko gën a faral. kër Sëriñ Tuubaa gi ci Daaru Manaan tam buñ ci àggee ubbil nañ leen lépp. ci ndigalu sëriñ bi jox nañ leen lépp. ba keroog ngeen ji ji nag ndax lu ñu fay defal loolu laa gën a fas. te moo gën a sëriñ. salaamaaleykum. ñu ngi sant nag bu baax. waaw waaw xam ne boo gisee sama ànd ak sàngale ma te yërëm ko ci liggéey waaye dafa boole ñaar yëpp lii di waxoon na ma ko moo tax boo seedee lii dafa dëggal lool la toogee woon rek ci yor ku baax la te te te jàmbaar te dëggul lool tax suñu xaalis ñi ñu ngi ko ci dollee sant moom ëtt bi miin na ko lool ci alxuraan waxtu naa ko fi gis mu fi jàngal jàngal waaw ñu <laughs> ngi sant bu baax a baax. waaw kay incha allah incha allah. jërëjëf Mbacke. wajal bi jaayil muntaqa xayaati riayat alqurani ذي العيال